Euh, kii di Pape Alé Niang daal nañ am liberté provisoire bu ñu sukkandikoo nag si rakk ji di Thierno Niang ginnaaw moo ñu daal di xibaar bi la mbir euh, moom Pape Alé Niang nag si fàttali nii ñu ngi ko tegee woon loxo si euh, jamono ji ñu jàppee woon Ousmane Sonko daal di koy yóbbu si kaso bu Sébikotane loolee sax xewoon si bisub fanweeri fan ak benn si weeru juillet bi ñu génn si atum 2023 moom Pape Alé Niang nag section de recherche daal di koy jàppu daal di koy yóbbu nag si kaso bu Sébikotane si fàttali ni Pape Alé nekkoon fi sous contrôle judiciaire judiciaire ñu tegoon ko loxo si jamono ji ñu jàppee Ousmane Sonko yóbbu ko nag si kaso bu Sébikotane las nañ soppal sax mooy dafa nag entamé woon ab grève de la faim ginnaaw nag grève de la faim boobu sax daal di koy juraloon di ministre la justice sax doon si ñëwaat ndiki démb nag si ab benn gi moom Ismaïla Madior Fall doon dëggal nag rawale gi nga xamante ni rawale woon nañ ko ab taskatu tey si talaata talaata ji ah, juróom benn fan si weeri août si atum 2023 bu ñu sukkandikoo ba tey ah, si rakk ji ah, di Thierno Niang moo ñuy xibaar que nii moom Pape Alé Niang nag ginnaaw ba ñu ko yóbbee sa l'hôpital bu principal de Dakar ginnaaw ba mu lottee lool daal nañ koy bàyyi ndiki tey ji maanaam am na liberté provisoire loolee nag moo nekk li gën a fës ndiki tey ji jëmale ko nag si Pape Alé Niang ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen gën toppal ba mu xuus su ko defee ñu gën see indi leeral jaa ngeen